muy wax boo ko déglu la nga ciy jàng dina bëri mm-hmm. tey toujours rek nee naa la kontaan mm-hmm. ci teewaay bi fii mm-hmm. ànd ak Mathia Préra l'enfant terrible kii mooy nag mooy gaynde borom sareet yi mafia mhm. bi nekk géejawaay nag mhm. Mathia la mhm. xale bu ndaw boo xamante ni peut-être que ma ay atam bëriwul mais mel na ni ko am soixante ans Mohamed Ale am na lu ma bëgg nga piliseel ma ko te dina ñu ma ko may ñaa bu ndaw dafa def lu garaaw am bis jàpp ni man maay bàyyi géejawaay mu jël open press bi dara jaale ma ko ah bon na Sénégal yëpp xam ni open press su ñaa bu ndaw mm-hmm. man lañ ko bàyyeele macha allah man lañ ko najaayele mm-hmm. man lañ ko séddee waaye bis boobu nag mm-hmm. yaakaar naa ni jinne yi sax di dañuy ñëw ci open press ba kon Mohamed Alé Ndiaye ngërëm loolu nga gërëmal ma ko ñaa bu ndaw ci cër bii mu ma jox ba jël lii jox ma ko te doomu géejawe yi ñoo ko xalaat on continue mais oh. macha allah <laughs> ñaa bu ndaw vraiment félicitations xale nga waaye nag attention parce que xale nga boo xam ne tey. Mhm. yaa ngi wane ne aussi da am kilifa. Mhm. fekk kilifa gu mel ni Père Diaw. Mhm. wax dëgg yàlla nga ñëw jël sa lépp ne ko Père Diaw. lépp mu ngi nii teg naa sa loxo macha allah. kontaan nañ ci moom. kontaan nañ aussi ci son comportement parce que mbër la xale bu yaru la. mais attention sama mbër lay bëreel sama boy lay bëreel muy Zarko. mais yéen ñaar Père Diaw mais bi mooy deuxième fois ngeen daje bu dimanche bu dimanche incha allah. Ah! da nga indi sa mbër nag muy dajeeg sama poulain. indi woon nga keroog sa mbër de. Zarkan Zarko l'enfant terrible de Grand Yoff. xam nga non du la may dara. xam nga ah. tey. Ah. à vrai dire Mohamed Aly lu garaaw ko indi suma kër. waaw. <laughs> Ah. la kat. Mm-hmm. xëy na nag. Mm-hmm. duma ma ñëwati ni nañu teg fii ci mikaay lii. Mm-hmm. ñu ne duñ ko fi teg. mais wax ji bu ko kenn échanger. yaakaar dama am lu ma ci metti ndax ñi ko def ndam rek li ñu bëggoon. mais xam naa ni bu ëllëgee bu Fils de Balla daan bëree ma ñëw ci stade bi ñu fekk ma fa. dinañu booleel suñu xalaat. te bëgg naa trop ci Fils de Balla ak ñi ko indi woon ñëpp. may wax rek ni Sarko. bi mu jëlee sama avance. ba daan Diène Kaïré. dafa ne nañ ko jox beneen avance du bëreeg ñaa bu ndaw. waaye booba Dalin Koor bee ko tëgg. te Sarko mbër mu sportif la. mbër mu baax la maa ngi koy yéene mu am ngay làmb Sarko non dama seetaan yaayam dama jooy waaye mu ñël rek Sarko dana indi lépp waaye nag dafa fekk ki nga xam ni moom lañuy ñuy former pour mu doon roi des arènes Sarko jël ko gis nga Mohamed Alé Ndiaye dana jël sama gauche ak sama droite moom moom mi non non <laughs> xam nga non Père Diaw doucement. non non moom moom xamul. non non non Père Diaw calme koy waxee champion de la. l'enfant terrible ñaan ko Zarko. <laughs> nee na mooy champion de monde. kooku du la may dara. Ah. te yow xam nga ko. non bëgg naa xam nga mm. sama mbégte mooy. dama yaakaaroon ni ku mel ni Mohamed Ali Ndiaye. nekkul ci gannaaw Zarko. Mm. daan nañu ànd nag dara la dëgër. Mm. bii paa dañuy détail. day jógee Grand Yoff ma jógee géejawaay mm-hmm. may ñaan ñaari mbër yi leen mm-hmm. di ko ñaan Sarko mm-hmm. di ko ñaan sportif bu mag la bis bi ak moom ñaa bu ndaw na xam ni ñaar rakkam la te Sarko ku ñàkk ki ñaan la ndax su ko neexoon mu ni du bëre ñaa mu may ko sens non Sarko il est excellent ma bëgg rek làmb jooju na Sénégal yëpp ñëw seetaan si mais ñaa bu ndaw ak Sarko ñu indi jàmm. xam ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. ñu bañ a santeen sànnante dara. def nag li leen sëriñ si sant. te mu yem. te mu yem ñu bëree. ma mm-hmm. daan ko jël bu rëy. Mohamed Aly Ndiaye nag tey moo ma seet si. non père est gëm nga loolu ngay wax nii père. Mohamed ah, père wala non non wala lawal bi la mais yow ban ceeb nga bëgg non ban ceeb nga bëgg ma toggal la ah. non après la combat man non xam nga tey wala man maay ñëw non non père calme-toi un peu. xam nga tey man sooy waxee nii sax man damay naan non y' a quelque chose qui ne va pas parce que non per jaw ñu toog ceebu waalo macha allah. Mm-hmm. ataay ji lëwal bi jar na quatorze milliards donte déwal bi lëwal deuxième bi sax mm-hmm. xawoon naa mel ni yéenu nag macha allah mais père lool la naan fii naan ñaa bu ndaw da ngay jàpp Zarko mais père Zarko ngay wax de. l'infanterie de est-ce que jaawale woo. non promoteur bi nekk Grand Yoff bi. promoteur bi ah? moo graaw. xam nga non te démb. démb barki démb mm-hmm. yow gis nga Zarko. dafa wane signature am de. Mhm. mbay guy gi l' enfant terrible du Bawol. Mhm. gis nga ni mu def waa ji wala dafa ne cëpp suq a xoolu ko sax. Mhm. Zarko benn voyage la ko def de. non bëreeg Zarko non non non calme-toi Zarko dafa jar lu nekk non kii mooy aada kii mooy aada Fass. barki démb. yow gis nga Zarko ni mu def booy boobu ñu ne déet ñu naan l'enfant terrible de Médina doomu Boy Kéré. mais lii dafa neex. xam nga suñu émission bi xoolal je pense bien que ni. mooy nekk meilleure émission ñëpp naan meilleure émission ci année bi mais maa ngi koy wax leen. laal na laalaak li ma décidé. Hmm. war ko développer. Hmm. suñu bëree ba pare. il hmm. y a deux choses. da ngeen may jël si. ma dem këram. wala moom mu dimbali ma dellu si. ma indi talaatay ndeer indi ñoom Assane Thiam. togg ceebu jën bi bu ndar. ak bu waalo ñu waxtaan nag après le combat mu demandé ma niveau bii nga plaidé ci combat wu ñaa bu ndaw fan nga ko jëlee ñu ngi ñaan nag boroom jaam yi yàlla suñu borom est-ce duma la ne niveau bi des na Maodo du am eh, non mais Père Diaw doucement rek jël la yàllaa ko yor de non yàllaa ko yor mais ñaa bu ñaa bëree ba pare di ngeen xam ni na Sall mhm. borom xam-xam bu mag bi mhm. entraîneur bu yaro bi mhm. kiy jox Père Diaw cër te di ko déglu koo koy ñëw ma magal ko nekk si ginnaaw non leneen luñ fi waxaat émission bi neexul. du mhm. fait que Mohamed Alioune daal mooy jógee Grand F. Mhm. Père Diaw jógee Guédiawaye. Mhm. ñu tuddee ko open press bi. may bàyyam mu boo mu boole ma. ci ñi muy déglu. moom ñaa bu ndaw. sunu yàlla sutura suturaale moom yor ndam. noo kii dinaa ko defal beneen ceebu waalo. amatuma leneen lu may wax. te bu doolee ma dool dolli nag. laaj ko. macha allah. te xam naa ni mhm. ceebu wàllu boobu dinañ ko dolli mhm. macha allah mhm. te bu boobaa pexe yama lay daanee yama la daanee ba pare dinaa la wax ni Père Diaw attention xam nga ba ma lay wax naan la Père Diaw calme a y avait une bonne raison donc tey nag wala ni boo indee gauche droite bi ma arba absorbé ko dafay xew mooy d'interrogation am na lu ma koy defal nag su ma gañee dinaa dem ci monsieur le maire Ahmed Aïdara mu daggal Mohamed Alé Ndiaye terrain ñu fexe ko recruter ndax si le plan des sports. recrutement day am. day am il faut mbër yi bàyyi. jël poulain yu ñu yor ci seen école de lutte. di liggéey ak ñoom làmb passé na foofu. làmb dafa toll ci recrutement. combat Balla Gaye bii. Mm-hmm. waa Guédiawaye dinañu ko jàppale. Mm-hmm. dinañu dem recruter ji ay mbër. Mm-hmm. pour wane ni sport foofu la toll. li ma la bëgg xamal muy gudd. wala muy gàtt. Mohamed Alé Ndiaye lii muy def mooy sport. boole parcelle. boole faas boole géejooy ñëpp di njabootam ñu ngi ñaan yàlla bàyyi la suñu kanam. ñoo ko bokk suturaal la. de passage ñoo ngi nuyu Pape Sarr keroog ñoo ngi waxtaan. wax dëgg yàlla mu ñëw seet sama kër ni xel baa pa sama sama tel nit ku baax la. Mm-hmm. ma ne ko nag Pape Sarr gor ca wax ja. Mm-hmm. ma ne ko maak yow dinaa la gunge ñu dem ànd seeti meeru pikin mm-hmm. ne ko ñett ci tali yooyu. pi tali bu mag. tali bu bees. wala xaw ma ni ko waxeeti sax. tali Icotaf tali Icotaf ñett yooyu nañ ci jël benn tuddee ko tali Modou Lo hmm? maa la ko wax. loolu moom yow am nga droit wax ko. waaw waaw maire moom mais man mais man ñetti ci tali yooyu. Pape daal moo waxoon. waaw moo waxoon mais Pape Sarr man a yow dañ koo bëgg. waaw hmm. te vraiment mu nekk ko Pikine mënul fay. Hmm. comme ni ñu ñàkkee bañ a fay Mansour Diop. nuy gërëm dirigeant pikin yëpp nag. ñëpp sumay nit la. mais Pape Sarr man Mansour Diop. Pala Diop. mais mention spéciale. Modou Lo daal jàngal na mbër nii leen. sport da nga koy def en commun. ne ñëpp ñëw bokk. moo tax Balla Gaye lii ñu bëgg dugal ci boppam. bëgg ko écarter nit ñi. bëgg ku ne mu daw la ñun am nañu mentalité bu toll ni loolu du fi amee géejawaay ñoo dajaloo nekk benn bloc jàppale ko bis ba ñu takk ndigam ànd ak moom ci làmba ji mu bëree gàññe ñu dellu si amatuma leneen lu may wax maa ngi sant te di gërëm sa caméraman bi sa ginnaaw di gërëm suma jarbaat bi tur bi naga la mm-hmm. nogoy jigéen ju mën góor nga mm-hmm. góor baax na jigéen baax na mm-hmm. vraiment maa ngi ñaanal say waajur bu ñu amul woon ci yow confiance duñ la bàyyi de à six du soir ku la xool xam ni dañ la yar ku la xool xam ni jom a ngi ci yow ku la xool xam ni fullaa ngi ci yow te ay ndaw ngeen lu ne mën naa am gëm leen seen bopp comme li Bougane Gueye Dany tudde gëm sa bopp tey nag émission bi leen rek moo ma ci metti sama doom ji daf fi ñëw ba dem te ngeen waroon ko laaj même bu doon deux mois muy match mi nga xam ni jukkoy puso la yor di fait que nag nee bëggul feeñ mais ni ngeen xam ni émission bi ki ko réalisé mooy Mathieu moo ma indil mbëru géejawa yi di wane ni nanu seeti sunu baay te maa ngi talal suma loxo ñëpp ñu ñëw seeti seen papa ñu jàppalante xam ne àlalu fa ñuul moo di ñàkk géejawaay maa fi ne. ba ci kanam. jërëjëf jërëjëf. oh. am na solo macha kontaan kontaan kontaan trop ci comme ni ma koy wax rek euh, teewaay bi fii. ndax lii mooy defar émission bi ñëwee nii. macha allah waaye fiis kay toog fii toog. xam nga non macha allah. pour wax la ni rek lii moom mooy jàmm ak salaam. comme li ñuy wax rek si si nous dans nous. xoolal tey yàlla def na. délégation bi nekk fii. suñu fils ñëw sala mag ñëw seet si per Diop lii mooy seen cër ñoom. buñ ko defee dañ ko def. buñ ko war def buñ ko deful dañoo war a def. àdduna nag fu nit nekk boo amee kilifa. lépp looy def yàlla dinañ ci suturaal. waa Géejawaay delloosiwaat leen seen xel. macha allah da ngeen am kilifa per Diop. vraiment kontaan ci teewaay bi fii. Mhm. et puis passer la journée sax avec per Diop. c'est riche. Mhm. parce que bu dul dara rek per Diop dictionnaire la mu monument la li nekk ci bopp bi yëpp mm-hmm. boo toogee di déglu per jaw suba ba ngoon boo feebaroon boo fi jógee da ngay wér mm-hmm. stress doo ko am mm-hmm. parce que da ngay kontaan parce que per Diaw dana la wax sa bopp dana la wax àdduna dana la fàttali démb dana la fàttali tey dana la wax tamit lay ñëw bu subaa lii wolof di naan nag mag mën naa bàyyi cim réew mag ñi mm-hmm. nag buñ koy wax c'est pas pour rien et mm-hmm. na ko yàlla defal jàmm gën a yokk wér gi mm-hmm. man li may wax rek du leneen Père Diaw nga gis ko macha allah boo xoolee Père Diaw ak ay atam am na ñoo xam ne tey yor nañ atam boo leen gisee dañ leen di yëkkati leen weer rek di weer yi mais tey Père Diaw jantal paa la. macha loolu mooy li am nag. macha non c'est la vérité père. non nandite nga xam nga tey. père nandite nga. non c'est la vérité. yow yàlla def na da bëgg sa bopp. bu ñu waxee sañse gisuma ko la dàq sañse parce que hmm. danga nga civilisé. propre jaw rek ngay fekk stade. bu la ko neexee mu may la xaftaan bi ñetti morso yi yeewu ndugg yi te nag lan lay dóor ci suuf mm-hmm. bu point yi liy ci suuf de nga xam da ngay gis affaire bi nee naa nii taxaw ma non mais non xam xam nga lan moo defar émission bi da nga am niveau xam nga lan bi non da nga am niveau père mooy Mohamed may seet si macha allah bi ñëwul waaw la fin ngeen ñëw Guédiawaye mm-hmm. doon ma seet si mm-hmm. ñu mujj waxtaan. bi may développé léegi ci fils de Balla. sama jarbaat bii bu feeñul. tey demee neneen ñun fils de Balla dañ ko bàyyi xel. góoram yi lii lépp borom puso bu mag bi la muy macca lii lépp ci ay pexeem la. man géejawaay ñoom rek laa am man nu ma mel géejawaay la. may gërëm suma frère yëpp di gërëm suma doom yëpp te du wax ni ci biir wax ji lépp loo xam ne ñaaw na rek. ma wax ko ci biir géejawaay na ma ko waa géejawaay jéggal maa ngi ñaanal liiru jaan ñoom ñi dem ci coupe de Afrique bi mhm. di wax ni président Lat Diop mhm. non il est excellent mhm. aw ma numéro téléphone am xaw ma juróom bokkuma ak moom parti mais lii logique mooy Alioune Sall Lat Diop bi mu aylee kuy doomu géejawaay te bëgg a dem daggal na la billet may gërëm suma waa ji Alaaji Malick Gakou dëkk bi dañu mën a ruube bu ma waxee ba pare tudd ma ko. ñu ne voilà boo demee dem na. man sotti yor a laa. du ma mas a dem. mais alin Sall. géejawaay du ko mas a fàtte. Alioune Sall. non non Lat Diop li nga def rafet na. ñu ngi lay ñaanal teraanga bi nga teral doomu géejawaay. terale ko waa Sénégal. ànd ak équipe bi dem. may dellu nag di ñaax équipe bi bu altine. waaye nañ ñu dimbali ci Côte d'Ivoire teel a tàggoog moom. deux premier mi-temps. maa ngi koy ñaan ci daraja Yonent bi ndax ñun ñëpp ay jaami yàlla lañu. Mhm. Ivoirien yàlla leen bind bind ñu. Mhm. waaye am nañu droit ñaan sunu borom. Mhm. ci doole Serigne su baax sii fi ne. nañu lu te jël football bi au sérieux. Côte d'Ivoire dañoo bëgg ëldëb. te loolu duñu ko nangu saajo Mané. du ñàkk nga seetaan chute bi bul nangu ku la ëldëb. te Sénégal yëpp ñu ngi lay ñaanal gàcce ngalama Sadio. sa mariage bi yàlla nga ci am doom yu barkeel ndax yow reewoo beewuloo wutuma ci yow dara nag mais yow rek ya tax may topp football Sadio gàcce ngaalaama gàcce ngaalaama Aline Cissé gàcce ngaalaama équipe nationale yëpp gàcce ngaalaama dirigeant yi mais ministère des sports bu mel ni Lat Diop ku équipe bi départ nga départ bu ñu xëyee nga xëy bu ñu gontee nga gont Lat Diop ñu ngi ñaan ci darajo yenent bi yàlla na la yàlla suturaal ci équipe bii nga yóbbu. kon nag suma frère bii même bu doon deux mots. tu penses bien que ni mm-hmm. suma jarbaat. Mm-hmm. suma doom rafet na. moom ngeen laaj ko ko ay ci. moom laa moom mooy teg sax.